garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di dalal ak jàmm ci seen rajo Afia FM di leen dalalaat ci seen émission meilleure santé comme ni ngeen ko xamee rek ñu ci ànd ak pharmacie nationale d' approvisionnement ñu nekk ci weeru octobre ku ne weeru ku ne octobre rek ne octobre rose di weer bi nga xamante ni dañ ko jagleel la xeexum cancer du sang euh, tey nag euh, ñu koy waxtaanee di dalal ki nga xamante ni moo di Sira Doumbia di EPS euh, bu Nabil Choucair ak. daañu dalal itam Kandi Touré di présidente association bàjjenu gox yi foofu foofule ca parcelle Parcelles Assainies mbokk auditeurs yi laata ñoo xuus rek ci waxtaan gi dañuy jox kàddu gi Sira Doumbouya mu daal di nuyoo ko mbokk auditeurs yi Sira nuyu nañ la. asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Maymuna ak euh, équipe bu Afia FM yëpp ñu ngi leen di nuyu euh, di nuyu mbokk auditeurs yi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, di leen xamal ne tam ñu ngi am mbégte. ñëw toogaat ak yéen fii comme nañ koy baaxoo di defee euh, ngir waxtaan ak yéen si wàllu wergu yaram soxna Maimouna euh, jërëjëf Sira comme ni ma leen ko waxee rek mbokk auditeurs yi ñu nekk ci weeru octobre euh, di waxtaanee jàngoro ji di cancer du sang Sira foofu leet Nabil Chouker mu mel ni am na ay dépistage yoo xamante ni yéen a ngi koy jagleel jigéen ñi jëm ci wàllum jàngoro jooji di cancer du sang. Euh, waaw soxna a xam nga da nga wax sànq ci sa introduction ne octobre rose euh, donc loolu soo ko déggee dafay nekk moment yoo xamante ne c'est non seulement euh, dépistage cancer du sein mais aussi dépistage cancer du cole de l'utérus mm-hmm. donc ñaar yooyu daanaka moo gën a soxal jigéen ñi ba tax na su période boobu ñëwee ñu koy wax octobre rose ñu di ko faral di feetal chaque année ci weeru octobre Euh, dañu ci euh, faral di euh, encourager jigéen ñi ñuy faral di def dépistage boobu ndax dafa nekk lu am solo ndax yaakaar naa ci wàllu wérgu yaram dañuy faral di wax xoddeeku moo gën lakkale mm-hmm. donc ba tax na képp koo xamante ne kii même ci wàllu njurum doom ak yooyu noonu yëpp dañ siy faral di di gëstu bu baax. Mm-hmm. di ci nemmeeku te période boobu dafay nekk période boo xamante ne campagne lay doon campagne boo xam ne dañ ciy gën a yee jigéen ñi euh, gën leen ci tàggat ngir ñu gën a mën a nemmeeku ak di saytu ak di bàyyi xel bu baax seen yaram soxna Maymuna Mm-hmm. am na solo bu baax a baax Sira mu mel ni euh, cancer du sein wala sax comme ni nga ko waxee euh, cancer du col de l'utérus mu mel ni euh, dem na ba doon problème santé publique fii ci réew mu Sénégal ndax buñ koy xayma 1700 nouveaux cas la ñuy enregistré at bu nekk mu doon loo xamante ni doy na waar bu baax a baax mu mel ni jàngoro ji mi ngi gën di law fii ci réew réewum Sénégal mu soxal nag ñi nga xamante ni ñoo di jigéen ñi ba tax na teel a jug bi tamit da ci am solo bu baax a baax Sira ngir di caytu seen yaram bu baax a baax. ñoom jigéen ñi. waaw effectivement comme ni nga ko waxee xam nga euh, tawat moom yaakaar naa bu fekkente ne nit ñi duñ ci bàyyi xel torop rek dafay am tànku kanam mais ñun li ñuy gën a bëgg rek mooy euh, feebar di dellu ginnaaw ba nga xamante ne amaana bu ñuy waxati ay cas ci ay lim yu yu néew lay doon mais comme ni ñuy faral di wax rek euh, wàllu wérgu yaram nit ñi war nañ di ko bàyyi xel di ko saytu. ba nga xamante ne cas yi fu ñu leen di limee rek war nañu gën a mën a euh, dellu ginnaaw te yaakaar naa lii di communication lii di sensibilisation lu am solo la donc buñ ci nit ñi di gën a farlu rek dinañu fexe ba li nga xamante ne lii moom mooy feebaru cancer du col de l'utérus ak euh, cancer du sein muy maanaam euh, jàngoroy ween boobu dina gën a mun a dellu ginnaaw. Mm-hmm. bu ne weeru octobre ñu jagleel ko comme ni nga ko waxee wàllum sensibilisation waaye it wàllum prise en charge li nga xamante ni moo di cancer du sang si prise en charge boobee sax la ñuy desandi dañuy dem Sira dem teewlu ji benn entretien boo xamante ni séq nañ ko ak euh, Thiané euh, Ndiaye euh, dañuy dem rek daal di koy teewlu ñu dellu si waat ci plateau bi. ñu nekk ci mois d' bu ne octobre rek xel yëpp day dem ci octobre rose ñu jagleel ko xeexum lépp luy cancer du tey nag ñuy dalal Thiané Ndiaye euh, Thiané nag euh, di professeur foofu euh, foofule ca Gossas doonoon na itam taskatu xabaar di yëngu ci wàllum presse écrite tey mbokk auditeurs yi moom la ñuy dalal Thiané nag amoon na jàngoro ji di cancer di sang fi mu toll nii nag wër na pëng xeex nag moom ba jamono ji wër na pëng waral nag mu bind ab livre duppee ko l'œil d'une patiente livre boobe yëpp nag Thiané dina ko ci décortiquer Thiané dañ la jox kàddu gi nga daal di nuyoo wax ñu nag lan moo la motiver ba nga bind livre bi nga xamante ni mooy l'œil d'une patiente. waaw man maa ngi tudd Thiané Ndiaye professeur philosophie laa lycée Kharkam bu Gossas man nag dama bind livre ci malade du cancer yi euh, su ma ci bindee livre nag du loo xam ni c'est gratuit parce que man mii sama bopp euh, cancer du sein dama ko amoon waaw di faju nag depuis juróom-benn at maa ngi nii di faju hôpital bu ne dem naa fa ci ci faju boobu ah, mu metti lool ma rencontré ci difficulté yu bare bari gis tamit ay malade yoo xam ne wallaay ñu ngi rencontré ay difficulté yu bari loolu yëpp tax daal ma ne lii il faut ma bind ci dara parce que lii nit ñi sax duñ ko soupçonné parce que man chaque fois dama koy wax dama naan sénégalaise la laa juddoo yaroo fi màggee fi mais mu ci hôpitaux yi nit ñi lii lañ fiy daj su ma ko xam waaw loolu yëpp nag moo ma motivé bi ma tanee ma ne lii il faut ma bind ci wasaare ko pour ñëpp xam daal difficulté yi malade yi di dund waaw seen parents yi mun ci jàpp état bi mun ci jàpp ñi ci war a jàpp yëpp mun ci jàpp daal. Thiané ñu gis ne ci biir livre bi dellu siwaat nga bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni ñoo yore jàngoro jii di cancer du sang ñu ngi koy dund mën nga dellu tu ci rek ci jafe-jafe yooyee nga xamante ni yaa ngi koy évoqué ci sa biir livre boobule constat bi daanaka ñëpp a ko def ci réew mi ñu gis ne taux mortalité ñi nga xamante ni ñoo amee cancer bi bari na lool maanaam ñi ci génn àddina dafa bari lool lan moo ko waral est-ce que nekkul traitement bi nga xamante ni cher na lool ci ñoom. waaw ñiy dee si cancer bi moom wax dëgg yàlla bari na bari na loolu moom wax dëgg yàlla mënuñu wax leneen da dul bari na parce que cent malades yoo jël euh, soixante di si dañuy dee waaw trente yi rek ñoo ciy rëcc comme loolu bari na bari na torop te li ci gën a metti mooy que ni jigéen ñi la maladie bi gën a di jàpp gën di touché euh, wallaay dafa metti yow yaakaar ni xanaa jigéenu Sénégal yëpp am feebar bi léegi te li ci gën a yéemee ay xale yu ndaw ngay gis léegi ñu yor ko ay adolescente bu njëkk ba euh, ay mag nga doon gis ay quarante ans cinquante ans jëm kaw à part de moment boobu li nga doon wax ne am na ay risque cancer ak yooyu mais léegi xale yu ndaw ay quinze ans seize ans ay adolescente ngay gis hôpital ñuy ñëw di faju pour euh, cancer du sein mais loolu yëpp tamit war a tax ñu gën ci taxaw daal gën ci kii parce que comme ni ma ko waxee rek ci livre bi euh, le cancer est devenu un véritable problème de santé publique waaw yàlla war nañ cee nga feebaroon di jaabante daanaka l'hôpital yi nekk fii yëpp ci réew mi nga amoon cancer du sang tey ji nga wër péng ñu gis ne ci biir livre bi jot nga ko laal mu di wàllum accueil ci l'hôpital yi en général naka nga gisee accueil bi ci ci ci ci hôpital yi nekk fii ci réew mi ak ñi nga xamante ni dañoo amee jàngoro ji di cancer. nañ accueil yi moom ñëpp koy jooy. waaw fi ma jaar naa ci hôpitaux yu bëri euh, dans le cadre de mon traitement daan teg laay traité woo mais dama doon dem ci yeneen hôpitaux yi pour ay examens médicaux ay scanner fii ay hôpital Grand Yoff ay ay hôpital HMO bu Wakam foofu laa defee sama opération ba hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack mais fépp daal foo dem da ngay am impression ne daal même chose da ngay fekk parfois accueil bu doy waar heureusement nag du ñëpp ñoo mel noonu. heureusement du ñëpp ñoo mel noonu mais parfois wallaay nit dina la fa accueillir accueil boo xam ne yow da ngay jommi ci yàlla parce que da naan ni euh, animal sax euh, war nga koo jox benn cër sama ak euh, nit waaw nit ni yow am na ñoo xam ne man dama naan mérité wuñ sax liggéey hôpital parce que hôpital pour nga liggéey fa il faut sa dënn yaatu il faut nga am un certain nombre de qualité il faut daal nga nekk nit daal ku laabir waaw loolu moom soo ko amul day day metti parce que kii ñëw tamit metti tam lay indaale su ñëwee tamit ñu ko ciy tegal yeneen ñu ci bëri dañ naan la ñun hôpital bu ñu fa demee mooy dee nañ amatuñu choix moo tax ñu dem fa mais suñu tànk ñu ngi am pexe duñu dem hôpital kon xam nga loolu dafa dafa yéeme dafa yéeme dafa doy waar. Thiané euh, nguurub dogal ñeel wàllum gratuité chimiothérapie euh, ci ñi nga xamante ni ñoo am cancer du sein ak cancer du col de l'utérus loolee nag entré na en vigueur benn fan ci weeru octobre ci atum deux mille dix-neuf lan nga ci xalaat ak est-ce que yaakaar nga ne ne effectif na ci ci l'hôpitaux yi nekk fii ci réewum Sénégal. chimiothérapie bi nag euh, waaw war nañ ci wax. parce que buñ nee chimio bi léegi kenn dootu ci fay waaw lu baax la parce que buñ nee boo demee hôpital ñu ne la lii dootoo ko fay loolu lu baax la mais nag euh, dafa am yu bëri lu ci laxasu parce que balaa ngay def chimio am na ay examen médicaux yooyu def di nga def mammographie di nga def ay examen sanguin ak yooyu yëpp te yooyu yëpp ngay def dina la coûter entre trois cent et cent mille loolu estimation la yoo xam ni présidente LISCA madame ma Guenoul moo ko def kon kooku li muy wax xam na ko parce que ci loolu lay yëngu quatre trois cent à quatre cent mille xam nga ne loolu du sénégalais yëpp ko am rawatina tum suñu mbokk jigéen nga xam ne ñu ci bëri euh, liggéey loolu tamit day day day yéeme day doy waar buñ ne gratuite na te yow saa yoo demee ñu ne la dafay poser problème parce que say mbokk dañ doon dajale dimbali la yow boo demee hôpital garab yi amul da ngay dem pharmacie ba jëndi waaye léegi bés bu état bi ne garab yi ni gratuit xam nga yow da ngay gêné wu sax nga dem fi tàllalaat loxo say mbokk parce que dinañ ne kii amul yërmande ndax boobu ba léegi ñu koy jàppale état bi ne c'est gratuit mu bëgg ku ñu continuer di di eh, cancer ñëpp xam nañ ne dafa dafa xaar euh, médicament yi disponible ci ci ci hôpitaux yi te plus ngay xaar plus maladie bi euh, déjà gi yow soo à trois semaines jëloo ko day compromettre mm-hmm. euh, traitement bi yëpp da ngay obligé reprendre à zéro xam nga loolu yëpp tamit ça pose problème maladie sax boo leen di laaj ñoom dañ naan ñoom wax dëgg yàlla dañu gën a sonn sax dañu gën a sonn parce que garab yoo xam ne gisuñu ko amatuñu ku leen jàppale pour ñu dem ci pharmacie yi jënd waaw loolu yëpp daal ay problème la la leen mujj jural gratuité boobu day problème yu bari lu ci laxasu waaw dafa am ay préalable mooy examen médicaux yi ma lay wax am tamit leneen lu ci kii mooy euh, rupture de yi ci ci ci garab yi ci ci hôpitaux yi te bëri na daal lu muy arrivé bëri na trop lu muy arrivé. ñu gis ne fii ci réewum Sénégal boo nee cancer rek nit ñi dañuy jàpp ne dee nga ba noppi lan nga mën wax par ak loolu. rek Sénégal moom boo nee cancer rek ñu ne dee moo ci te tamit dinañ comprendre tamit lu tax parce que bi ni ma ko waxee ci livre bi jàllul. du ñu communiquer ci maladie bi da ngay gis ku feebar di faju du xam sax lu mu am du xam sax ne cancer la am xam nga loolu yëpp tamit dafa yéeme mais malaat bi da nga ko war a egsi xam li koy xaar déjà yow boo xamee li lay xaar rek da ngay xaw a dal te dal boobu dafa am solo ci ci ci ci faj bi dal bi dafa am solo ci faj bi waaw léegi nag euh, loolu nag mooy problème bi parce que il faut que ñuy informer malade yi il faut ñuy wax ak yi Euh, ba pare nag euh, comme li ma wax léegi tamit euh, soixante dix pour cent wu malaat yi dañuy dañuy dañuy faatu xam nga loolu tamit tax yokku na tamit tax ñu bëri yaakaar ne cancer moom boo ko amee dee rek moo stock topp pourtant demewul noonu parce que am nañu ciy wér am na ñu ciy wér bien que bariwul na mais am na ñu ciy wér mais nag pour loolu am il faut nit ñi teel ci jóg. waaw moo taxoon ma naan euh, mammographie bi buñ ko rendre gratuite gën a pertinant parce que bu fekkee jigéen am na lum sentir mu xam ne bu demee du fay dara ñu seet ko kooku day day jóg rek dem. day jóg rek dem mais bu ko wóoree ne pour mu dem il faut trois du ñëpp a ko am du ñëpp a ko am dafa dafa diis dafa metti waaw ci société boo xam ni wax dëgg yàlla mooy loolu am am bi demeewul noonu. traitement bi jëm ci jàngoro ji di cancer nekkul rek ne dafa diis lool ci wàllum koom waaye it mu mel ni tamit am na ay jafe-jafe yoo xamante ni mën na ko jur ci yaramu nit ki nga xamante ni moo amee jàngoro gi mën nga ñu wax tuuti ci effet secondaire u chimiothérapie. cancer nag euh, metti niveau bi dafa diis waaye nag ça dépend tamit ci organisme yi parce que am am na organisme yeneen organisme ñu tey bu ñu ñëwee ñu leen di defal garab bi fi ñu toog dañuy wàccu ba dootuñu am benn doole wallaay waaw am na ñoo xam ne ay jaare la leen di def waaw am na ñoo xam ne karaw gi moom sa dootoo am karaw sa karaw gi yëpp lay teggi ñii seen wee yi lay yóbbu sa sa sa peau bi da ngay gis ni muy détaché woo diis na daal wax dëgg yàlla diis na metti na diis na metti na waaye nag euh, muñ loo ko yàlla waaw gëm yàlla rek góorgóorlu timit parce que timit euh, boo bàyyee ko maladie moom euh, il faut nga am benn euh, état psychologique bu solide waaw bu fekkee da nga bàyyeeku rek ci maladie bi daf lay gagné il faut yow timit ngay dëgërlu waaw di bañ daal maladie bi gagné la di ci bañ di jël yëpp yëpp ko ci loxo yàlla parce que yàlla mooy tege feebar bu fekkoon nit mooy teg boppam feebar kon kenn du feebar nga jël yëpp delloo ko yàlla waaw daal di sa bopp nag faj. LISCA di ligue sénégalaise de lutte solo boo xamante ni ñu ngi koy defal malade yi ci wàllum kom ak ci wàllum day d'ailleurs sax jot nga cee wax tuuti eh, ci sa biir livre bi mën nga dellu si waat ci ci loolu. prise en charge boobu. waaw comme Liska maa ngi koy wax ci livre bi mi ngi ci def ay jéego yu mag wax dëgg yàlla parce que man ni dama fekke naa seeni rencontre parce que ñoom mardi bu mujje bu weer bu ne mardi bu mujjee bi dañ koy jël waaw euh, dajale malade yi ay ay islamologue fii ay euh, assistante sociale waaw koo xam ne islamologue la ci l'islam lay ci islam lay yëngu euh, malade yoo xam ni ñi ngi faju ñi ngi soog ñu leen di soog a dépister ne leen da ngeen am cancer ñu désespéré malaat yoo xam ne ñi ngi faju yeneen malade yoo xam ne faju nañ ba wér waaw loolu yëpp tamit day jàppale malaat yi faju ak malaat yi ñuy soog a déclaré positif au cancer parce que yow boo ñëwee nga jàkkaarloog nit kooku ne la ah man de dama ko amoon waaye wér loolu dalay psychologue mu jàppale la euh, psychologiquement loolu dalay yokk espoir boo taseek nitu diine mu ne la ah yàlla de ku mu teg feebar rek euh, ça veut que jege na la parce que lu ñun diine bi lu mu ñu wax mooy feebar euh, dañ la ci yàlla bu la ko tegee dalay raxasal say bàkkaar kon yooyu yëpp euh, ñu la ko waxee sax dangay ngay dellu si dañ lay dañuy delloo si sa xel waa sa xel gën a dal nga gën a mën a combattre nag maladie bi waaw te loolu nag wax dëgg yàlla waaliska ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo macha allah waaw waa hôpitaux yi tamit topp ci loolu parce que tamit maladie dañu soxla dañu soxla soutien psychologique boobu dañ ko soxla malheureusement euh, loolu ay quelques malades ñoo ko mun a am parce que malades yi am yëpp waa LISCA mënuñu leen jël en charge kon hôpitaux yi seen bopp tamit ñoo war a mettre en place structure yoo xam ne dañuy jàppale malades yi psychologiquement. par rapport ak liggéey boobee nga xamante ni LISCA ñu ngi koy def di ab euh, ONG boo xamante ni non gouvernemental la mu mel ni euh, jot na fi mu toll nii caane nguurub Sénégal dugal loxoom bu baax a baax ci wàllum prise en charge jigéen ñi nga xamante ni dañoo amee cancer du sein ak cancer du col de l'utérus waaw mais laa doon wax rek état bi moom il faut mu impliqué wu ci bu gën parce que tey ay chimie yëppoon yëpp état bi il faut mu impliqué wu ci loolu yi chaque fois maladie di ko trouver sur place ba pare tamit mu liggéey tamit ci pour maladie mën a teew de manière précoce waaw boobu foofu moom pour man daal foofu lay gën a pertinent bu fekkee képp ku sentir dara mën nga dem dépisté wu xool sa yaram te doo xëy dara foofu daal gën a pertinent te mooy gën a kon ñu dara rek ñu daw parce moyen bi nooy def da ngay dem toog sa toog xaar yàlla waaw loolu yëpp dafa dafa dafa métti. nga wax ñi tuuti ci li nga xalaat ci octobre rose ak journée de dépistage gratuit yi nga xamante ni LISCA mi ngi koy organiser waaye it bëggoon nañu tuuti rek nga wax ñu est-ce que cancer du sein wala cancer du col de l'utérus wàllum sensibilisation bi est-ce que war nañ ko rek mën a limiter euh, ci mois d'octobre kese. waaw ah, rose moom wax dëgg yàlla initiative bu baax a baax waaw initiative bu baax la parce que dina permettre femmes yu bari waaw ñu mun a profiter dépister wu ñi def ay mammographie wax dëgg yàlla lu baax la mais man li ma ci déplorer mooy li nga xam ne tamit octobre rose c'est vrai mais année bi tamit douze mois la euh, te comme maladie bi moom taxawul mi ngi gën a progresser mi ngi gën a dem di gën a bëri waaw kon daal jàpp naa ne euh, communication bi dañ ko war a def régulièrement régulièrement ñuy communiquer ak yi waaw euh, favoriser dépistage. wax ñu euh, ban message ngay lancé euh, ñi nga xamante ni ñoo di jigéen ñi nga xamante ni jamono ji ñu ngi xeex ak jàngoro ji di cancer du sang wala sax cancer du col de l'utérus euh, tey loo leen di wax yaw mi nga xamante ni jot nga jaar foofu def combat bi ba fi mu toll nii gagné nga ko wër nga péng lan mooy message bi ngay lancé yooyu la jigéen. ma mbokk jigéen ñi nag li ma leen di wax mooy ku ci ñi nga xam ne yàlla mu leen nattoor. bindee livre bi c'est vrai que. waa message d' espoir pour wax malade yi c'est possible possible nit wér ci cancer nag ci loxo yàlla parce que yàlla mooy teg wax namoon waaye yow la la wax euh, en tant que jaam mu di message bu fort boo xamante lancé nga ko askan wi ñu la siy jaajëfal bu baax a baax dañ jox kàddu gi nga daal di tàggatoo yëpp Afia FM maa ngi di gërëm yéen ñëpp macha allah ci liggéey bi ngeen di def euh, ci euh, askan wi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm seeni auditeur di leen sant macha allah di leen wax jërëjëfati jërëjëf mangoo ko ñu koy jëfal bu baax a moom Thiané Ndiaye di fàttali ne rek nag mi ngi doon dund ak jàngoro ji di cancer du sang waaye tey ji wër na peng ba mi ngi euh, bind jot na bind ab livre sira duppee ko l'œil d'une patiente yaakaar naa ni euh, jot na cee wax tuuti ci biir entretien bi wax na fi mu jaar difficulté yi nga xamante ni ñi nga jigéen ñi nga xamante ni ñoo amee jàngoro ji di cancer du sang ñu ngi koy jànkonteel ci hôpitaux yi wàllum prise bi chimiothérapie mu demee bi yu ni mel wax na yëpp àddu euh, jëmale ci Sira lan nga xalaat ci li nga xamante ni Thiané wax na ko. Euh, jërëjëf soxna Maymuna donc euh, Thiané dañuy wax ne vraiment dañ koy jaajëfal li tax ñu koy jaajafal mooy dafa wane exemple bu patent boo xamante ne mooy wane ne lii di cancer du sein dëgg la am na mën na lor nit. comme nit mën na caa jóge wér péng comme moom ni mu ko waxee ndax amoon na ko malgré que euh, rencontré na ci ay difficultés ci waxam expliqué na ko mais gis nañu ne soo ko téelee jël en charge euh, mën nga cee weex te yaakaar noo jàngat boobu en fait la ci nit ñi war a def lu am la waaye soo ko téelee jël en charge Euh, te teel a jël en charge bi mooy wane pertinence su euh, dépistage bu teel su ñu nee dépistage bu teel euh, mooy ki nga xamante ne kii moom mooy nit ki lépp loo nemmeeku sa yaram loo xamante ne lu bees la mosoo ko ci xam teelal dem ci fi nga xamante ne moom mooy structure de santé yi. Mhm. ñu teel ko mun a jël en charge ndax. xam naa caane la xam waaye mhm. am na ñeneen ñoo xamante ne ñii tamit Euh, maanaam teel a nemmeeku loolu seen yaram moo leen sauvé. Mhm. Euh, muy lu am solo dëgg la wax na ci biir waxam ne euh, prise en charge bi c'était difficile. Mhm. parce que en fait euh, prise en charge bi nekkul seulement sur le plan médical. d'accord nekkul seulement sur le plan médical nekkul seulement sur le plan économique mais dafa boole médical économie mais aussi sur le plan psychologique. Mhm. donc muy euh, moi je dis que sax part psychologique bi. dafa ci am pourcentage bu rëy. parce que nit kii am na nooy jàppee feebar euh, mun nga ci combattre nga wér. mais aussi am na nooy jàppee feebar soo dëgërul torop loolu mën na laa gën a yóbbu sax ka feebar bi. ndax nit su feebaree wax na sànq ci waxam ne euh, nit ñi dañoo jàpp ne cancer égal faatu. maanaam nit ki dafa war su amee cancer rek dee alors que c'est pas je crois que déjà déconstruction boobu. dañ ko war a def ba pare xamal nit ñi ne cancer feebar la mais feebar la boo xamante ne war nga caa mën a jóge wér péng mm-hmm. su fekkee prise en charge bi teel na euh, ba tax na euh, dépistage yooyu ñuy def dafa ci am solo xam nga sànq wax nga ne est-ce que octobre rose rek la ñu war a jàpp ne foofu la ñu war a defee kii bi man may jàpp ne mm-hmm. xëy na boobu daf ci gën a fës dafay nekk moment boo xamante ne effectivement comme nuñ ko tuddee campagne la mhm. mooy maanaam nit ñi dañ ci def ay euh, communication yu bëri mhm. nit ñi di ci demander wala partenaires yi pour ñu appuyer li nga xamante ne moom mooy recherche yeeg yooyu di ci jàppale jigéen ñu bëri si wàllu yenn yombal yi mais aussi ma jàpp ne saa su nekk nit ki war na bu demee structure de santé lépp lu ko fa jaaxal mu posé ko fa ba nga xamante ne dinañ ci teel a jël li nga xam ne moom mooy matuwaay yi war su ma waxee loolu mooy euh, tey ji yàlla def na jigéen ñi ñëw ëpp sax lu ñuy dem consultation que góor ñi ba tax na tey ji jigéen bu ñëw consultation moo xam beneen service moo la indi man jàpp naa ne war nañu mun saa su nekk di saytu ci yow mm-hmm. ba xam ndax am nga li nga xamante ne moom mooy cancer du cole de l'utérus wala li nga xamante ne moom mooy cancer du sein. Mhm. man ma jàpp ne suñ koy def noonu amaana euh, dinañu gën a mën a teel a jël nit ñi en charge nu mu gën a gaawee mooy li nga xamante ne lii moom mooy xeexum cancer du col de l'utérus ak euh, xeexum cancer euh, du sein. Mhm. Sira yaa ngi koy wax sànq mu di fii ci réewum Sénégal dañoo jàpp ne rek boo amee cancer mooy égal à la mort. dee nga ba noppi mu mel ni itam Thiané mi ngi koy wax ci biir livre bi wàllum communication bi dafa desandi bu baax a baax même si biir hôpitaux yi ndax nee na mm-hmm. euh, di nga gis jigéen yoo xamante ni cancer du sein lañ amee wala cancer du cole de l'utérus mais ba tey xamuñu li leen dal exactement lan la. Mm-hmm. ñoom dañuy jàpp ne cancer tur bi rëy na rek dee moo lañ ci nar a fekk. dëgg la moom laay moom laay wax léegi ma ne la euh, déjà dañu war a def déconstruction boobu maanaam déconstruction boobu mooy. Euh, nit ñu méngalee ñaar yooyu muy maanaam cancer égal faatu. Mhm. loolu il faut ñu ñu ñu naxasaay ko ci ci xelu nit ñi ba pare su boobaa nag ñu daal di togg tàggat ak ñoom li nga xamante ne lii moom la nit ñi war a jàppee cancer muy feebar boo xamante ne lu ñu war a teel a jël en charge la. Mhm. lu mun a wér la parce que euh, xarañte suñu euh, pajkat yaa ngi fi. mais aussi prise en charge bi nga xamante ne war nañ ko def tamit mu ngi fi mais il suffit tout simplement que nit ñi teel ko jël nu mu waree euh, surtout côté psychologique boobu parce que côté psychologique bi aussi bien prestataires yi war nañ ko mun a gérer mais aussi famille bi war nañ ko mun a gérer. Mm-hmm. parce que da ngay gis ne parfois aussi yow même su fekkee structure sanitaire mi ngi ciy jàpp soo amul toujours sa famille ñu nekk sa wet. Mm-hmm. di la tàttaan di la jàppale. loolu tamit mën naa sooxe quelque part. donc il faut mu am non seulement benn symbiose entre prestataire bi ak famille yi ku ci nekk tey jii boo demee hôpital. prestataire bi war a def lu mu war a def ci wàllu psychologie si wàllu paj ci wàllu jàppale la ci ni mu waree waaye boo delloo ca kër ga tamit nga am foofu koo xam ne mën naa dalal sa xel mën na la jàppale xamal la ne paj mi ñoom ñu ngi sa ginnaaw di la accompagner donc loolu dafay yombal lu baree bare bari bari ci wàllu prise en charge boobu pour que nit ki mën a génn nu mu gën a gaawee ci ci ci tawatam boobu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 Euh, di présidente association des bàjjenu gox Parcelles Assainies euh, Kandi dañ lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen sargal di leen fay di leen tàggat di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. Euh, comme comme comme d'habitude rek yéen bàjjenu gox yi ngeen di am rôle bu am solo boo xamante ni yéen a ngi koy joué jëm ci wàllum wér-gu-yaram fii ci réewum Sénégal. Mhm. ñu nekk ci weeru octobre mu di octobre rose ñu jagleel ko xeexum cancer du sein. Mhm. yan jéego ngeen jot a def jëm ci wàllu wi. ñeel wàllum sensibilisation bi. waaw boobu ba léegi ñu ngi ciy sensibiliser. Mhm. nit ñi ñun nag waa Parcelles bàjjenu Parcelles Assainies yëpp defoon nañ ci benn journée la 17 passé. d'accord waaw defoon ko si hôpital Ma Abdou lañ ko defee woon. Mhm. parce que gis nañ ne jàngoro ji. Mhm. ñu ngi ciy xeex waaye mu ngi law. te comme li Sira wax sànq jàngoro ji. du jàngoro ji dal na la da ngay dee jàngoro ji dañ koy faj day wér. buñ ko teelee xam day wér. ndax ñun dañ ciy ñu ngi ci terrain bi di jànkoonteeg jigéen ñi di xool li ñuy jànkoonteel te ñu ngi ciy gis ñi ñuy faj ñuy wér. Mm-hmm. comme nag dañu wax ne mois de octobre dañ ko jagleel jàngoro ji. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee waa Pastel nag ñoom organisé woon nañ benn journée keroog la 17 wax dëgg yàlla ñi ci sant yàlla. Mm-hmm. di ci gërëm ñëpp tamit ñi ci teew ñëpp ndax ñoom ñëpp a ci jàpp. ba yëf yi réussir. ndax boobu gis nañ ne nit jigéen ñi sonn nañ. tey faj bi yombul. faj bi yombul tànk nag octobre bi taxaw na ñu jéeman ci profité organiser bi bu ko defee ñi nga xam ne amuñu mooy pour dem faju mën a ñëw xool ci seen bopp buñ ko teelee gis ñu topp la rek jàppale la ba yàlla def ci daal li ñu gënal ñëpp wér daal moo ñu gënal moo taxoon ñu organiser boobu. Mhm. am na solo bu baax a baax a ñu euh, gouvernement réewum Sénégal ne woon euh, gratuité wàllum chimiothérapie cancer du sang ak cancer du col de l'utérus ñu ne nag euh, daal di nañ koy na en vigueur du mois 1er octobre ci atum 2019 ñii naan effectif na ci l'hôpitaux yi ñii naan déet lan ban xalaat nga nga ci am. waaw xam nga soxna Maymuna gouvernement du Sénégal bu jëlee dogal daal wax ne. Euh, gratuite na euh, dogal boobu dafay euh, maanaam dafay entrer en vigueur mais xam nga wàllu administration léeg-léeg parfois mun na am yoo xamante ne yii mooy sooxeel application boobu ndax yaakaar na il faut tamit ñu saytu ci biir bu baax lan moo waral xëy na dogal boobu sooxee ci ci ci application hmm. te loolu ni ñu koy mën a saytoo mooy il faut ñu wàcc fi nga xamante ne fii foofu la mbir mi di amee su ko defee ñu gën a saytu xam ndax yenn saay euh, di nga gis ñoo xamante ne sax defal nañ leen gratuité mais yaakaar naa manque de communication bi mooy tax ñoom ñu jàpp ne xëy na sax kenn defalu leen gratuité par rapport à ça mmh. aussi soo gisee tamit xam nga li nga xamante ne moom mooy cancer yaakaar naa sànq euh, soxna si wax na ko ay jaabante la ay analyse yooy def ay scanner yooy def mais aussi xam nga da ngay jël taxi saa su nekk da ngay dem dangay ñëw parce que mënoo dugg ak ñeneen ñi peut-être ci transport en commun yi il nga jël mm-hmm. donc dafay am coût te il faut ñu xam ne la santé même suñu nee si biir am na gratuité am na ay coût ndax xëy na gratuité du mun a nekk 100 pour cent ci li ngay soxla lépp dina ci am loo xamante ne parfois du am fii peut-être benn privé moo koy war a def donc yooyu noonu yëpp suñu ko xaymaa seet xëy na amaana ki nga xam ne dafa jàppoon ne gratuité la moom day mujj dellu si si xelam daal di ne kon finalement yëf yi amatul gratuité alors que amaana su gratuité boobu amutoon mbir mi dana gën a jéggi dayoo sax montant bi nga xamante ne moom la ci naroon a dépensé pour pour euh, pour pajoom euh, wax na tamit sànq yu am solo mooy maanaam conséquences yi nga xamante ne yi ki nga xamante ne am na feebar bi loolu la koy jural mooy maanaam si physique donc xam nga loolu euh, dafay indiwaat rek côté psychologique bi ñuy wax. Mm-hmm. parce que tey jii su ma jëlee koo xamante ne kii dafa doon bëgg di toppatoo karawam saa su nekk. nga xool gis ne yaa ngi bëgg a peña fekkatuloo fa karaw. Mm-hmm. Euh, nga gis koo xamante ne kii physique maanaam gis na ci loo xamante ne lii mais lu doon noonu donc yooyu noonu yëpp il faut tamit ñuy préparer nit ki xamal ko ne. Euh, conséquences yi nga xamante ne moo am ci feebar bi lii la ba nga xam ne nit ñi dinañu gën a bàyyi xel. Mhm. wàllum prévention wàllum fexe ba xëy na lii ñu fexe ba du gaaw a dal nit ki bu koy dalit dana fekk am na information yi war yëpp ba nga xamante ne prise en charge bi dafay daal di yomb yaakaar naa wax na sànq wàllu communication au niveau des hôpitaux muy lu am mhm. solo. Mhm. xam nga euh, nit koo xamante ne danga ko accueillir ni mu waree. kooku da ngay wàññi njàqareem ci wàllu feebar bi lu bari ndax dafay ne tey jii man fii nga xamante ne fii foofu laa yaakaare espoir fekk naa ko fa ba nga xamante ne man dinaa am courage continuer sama paj même su fekkente ne metti na donc loolu moom du ñuy noppee di ko wax dañuy gën a ñaax di gën a yee ñi nga xamante ne ñi ñoom la ñu bokkal ah, langum ah, paj mi ba nga xam ne saa su nekk dañ leen di fàttali di leen dolli di leen xamal ne nit ki nga xamante ne dafa ñëw pour wér gu yaram il faut ki koy accueillir moo ko mën a dalal parce que nag gis nga tey jii may mun a mu jóge fii ne ma ngay dem hôpital mm-hmm. moom déjà ma ngay xalaat lan lay fekk ca hôpital ba donc am na nu muy eggee am na nu ñu koy accueillir xalaat ga mu doon xalaat foofu dafay yokk ba nga xamante ne bu ñëwatee pour mu delluwaat ca hôpital ba dina ko jafe donc il faut nit ñi xam loolu xam ne am na ñoo xamante ne ñemewuñu hôpital. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne ñemewuñu ñu wax leen yenn feebar yi da ngay dégg sax ñu ne man ñu bañ ma ko wax sax ñu bañ ma xamal li ma am sax moo ma gënal alors ko du noonu euh, loo gis rek préparation la. am na ñu ñuy tegalee nit ki li nga xam ne moom mooy tawatam mu xam ko xam ne nii la war a def nii la ko war a jàppee nii la ko war a jëlee. Euh, waa kër ga tamit nit ñi xamal leen ne nii ngeen war a accompagner ki nga xamante ne kii moo tawat yooyu yëpp dafay am solo pour que nit ki euh, pajam am jeexital sinon da ngay faj nit ki mais au lieu que mooy paj mi di avancé positivement paj mi day daal di sooxe ba nga xamante ne soo moytu nit ki day mujj euh, sombre ndax mi ngi wax sànq 70 pour cent de mort mais mm-hmm. en fait ñooñu lu ci ëpp mooy li may wax ñàkk soutien bi ñuy am ndax xam nga soo xoolee euh, ñu bëri dañoo nekk ci situation boo xam ne bu précaire la. Mm-hmm. donc ñi nga xamante ne déjà situation boobu ñoom sans wergu yaram maanaam sans feebar rek. Mm-hmm. ñoom ñu ngi xool chaque jour nan la ñuy lijjantee seen bopp. Mm-hmm. xam nga ñooñu feebar bu ndaw bu ci greffé wu rek soo moytuwul dana ruiner sax famille bi balaa balaa leneen di di di mën a am. ba tax na il faut nit ñi jàppalante si nit ñi xam ne. su kenn feebaree ci kër il faut ñëpp jàpp ci pour mu mën a wér wér bu gën a gaaw nit ñi di dalal xelam mais aussi que les personnels de santé aussi xam ne ñi jóge seen kër ñëw làqu si si ñoom ngir seen wér gu yaram il faut ñu xam nu ñu leen di jàppalee parce que loolu daanaka moom mooy euh, objectif wu prise en charge ndax prise en charge soo ko déggee. Mm-hmm. te te en fait li li muy dellu ci nit mooy tax ku ko natt ci sa bopp war ngaa mën a xam. ban taxawaay nga war a def pour que nit ki xam ne dañ ko war a jël en charge ci anam yu ñu gën a nag naw pour que mu mën a am aboutissement bu positif Sira euh, Thiané mi ngi koy wax sànq wàllum mm-hmm. mammographie bi nga mm-hmm. xamante ni jigéen ñi dañ ko war a def at bu mm-hmm. nekk mu mel ni moom itam cher na lool est-ce que jotul tam nguurub Sénégal dugal ci loxoom bu baax a baax waaw jigéen ñi di mën a ñoom tamit ceytu seen wàllum wér-gu-yaram waaw xam nga da wax sax mammographie waaye yaakaar Euh, war nañu dem ba nga xamante ne structure bu nekk sax boo xamante ne bii structure de santé nga maanaam les centres de santé war nañu fexe ba xool nu ñuy saytoo loolu ba gën ko yombalal parce que en fait euh, ndax suñu duggee ci ci octobre dañuy gis ne nit ñi mën nañu am foo xamante ne fii foofu la ñuy dem di di di faju ji maanaam di def mammographie ci ci njëg boo xam ne moo gën a wàññeeku mais man jàpp naa ne loolu même en dehors de octobre war nañu mën a xool nan lañ koy jëmmalee ba nit ñi man ku ci am mammographie boo war a def mu moins cher si yow ba nga xamante ne war nañ ko mun a yombalal ndax nit ñi mën di ko def ndax gannaaw loolu dafay dugg ci dépistage bu teel bi man jàpp naa ne lu war a mën a nekk la ah, mais loo gis tamit xeex la loo gis tamit ay jalon looy posé la communication nga si def plaidoyer ngay def mhm. auprès des autorités mhm. pour ñu gën a mën a yombal ndax yaakaar naa ne ñu bëri sensible nañ ci. Mm-hmm. parce que nekk na feebar boo xam ne amul famille boo xamante ne bii rek amul ku xam ku ko am. d'accord ba tax na métti na métti goo xam ne. yaakaar mm-hmm. naa su ñu defee un plaidoyer fort nit ñi war nañ ci mën a sensible ba euh, yombalal googu yëpp ñu war ko mun a def ak sànq chimio beeg yooyu noonu yëpp lu ñu war a mun a yombal la parce que aussi garab yu cher la. accompagnement bi tamit yaakaar naa LISCA mi ngi ciy def lu am solo surtout par rapport à la prise en charge mhm, mhm, psychosociale mhm. psychologique mais je crois que il faut que loolu tamit euh, structure yi nga xamante ne ñu ngi fi te di yëngu si wàllu prise en charge psychologique ñu mën leen appuyer ñu mën ci tamit appuyer ndax loo gis nag jagut a ndax benn mooy indi fukk te yaakaar naa bu ci ku nekk di jàpp rek daal di ne man mun naa jël temps en charge sur le plan psychologique c'est très ndax la prise en charge psychologique nekkul loo xam ne nit ñi mën nañ ko palper mën nañ koo xayma. Hmm. mais nag yaakaar naa bu ñu ko analyser ba ci fond ba gis nañu ne dafa ci am une très grande part de euh, responsabilité.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 jigéen ñi euh, bu mhm. ñuy daanaka bu ñuy yegg ci lopito yi euh, mhm. day fekk mu ñu nekk ci benn stade avancé feebar bi mhm. nga xamante ni faj leen day doon lu jafe lool ba tax na ñu bari ci ñoom euh, duñ ci mucc sira mi ngi koy wax ci itam am na ci ñoo xamante ni naam am na lu ñu yëg loo xamante ni ñu ngi ko yëg seen ween waaye ragal na noo dem ndax dan naan naa toog mu rey ma moo gënal ma dem di xam ne jàngoro ji cancer la de tout façon damay dee te moonte de cancer boo teelee jug teel a def dépistage bi mën nga si génn bàjjen mu mel ni am na am na rôle bu am solo boo xamante ni war ngeen ko mën a jouer foofu yéen bàjjenu gox yi ci wàllum sensibilisation. Eh, dëgg la may na li nga wax dëgg la Sira tamit li mu wax dëgg la parce que jigéen ñi dañu wéyaale ba mu mm. ëpp leen doole nga xam ne mënatuñoo toog il fallait que ñu dem loolu moo tax mu di leen faagaagal wala di leen lor mais ñun toujours ñu ngi ci topp di leen wax di leen yebal hôpital. siraa li mu wax dama koy dëggal parce que am na ci ñoo xam ne bu ñu mën nañ faju ba wér bu ñu xamul ne feebar bi la mucc ci mooy gën a gaaw yomb parce que man amoon naa ci benn kaa boo xam ne wallahi azim xale bi faju na ba wér te xamul lu ko dal. Mm-hmm. te topp naa ci topp ci ba nga xamante ne danteg ju ngi koy jox rendez-vous yoo xam ne sori na te xaw ma exact fu feebar bi toll dama ci waxtaan ak jëkkëram ñu yóbbu ko benn clinique bu nekk ngox biñ ko seetee ne col bi buñ ko lakkee. dina ci mën a génn. d'accord lakk nañ kol bi ba mu génn ci macha allah fi mu ne ni mu nga ñaari doom waaye par césarienne lay accoucher. Mhm. bu ëmbee day am ay difficulté moom d'accord. Mhm. mais wax dëgg yàlla fi mu nekk ni mu ngi ci ñaari doom te faju na ba wér ba léegi da koy wax dugg naa këram mu ngi mbuur de ne ki ma àndal man dama nekk kër bàjjan Kande. d'accord di faju xaw ma lu ma dal. Mhm. faju naa ba wér te xaw ma lu ma dal. te loolu dafa am avantage. parce que nit ki il ba nga jàpp ne lii cancer la rek loolu moo lay rey parce que dangay jàpp ne comme ni nga ko waxee dootuma wér. Mm-hmm. te feebar bi dañ koy faj muy wér. dañ koy faj muy wér soo teelee dem hôpital da ngay wér da jigéen moo war lu mu yëg ci yaramam mu dem hôpital hôpital day faj loolu la fa nit di wuti kon soo feebaree demal hôpital loo yëg te yëgoo ko woon demal hôpital. teelal dem hôpital amul benn feebar boo xam ne yàlla fi mu nekk nii tegu ci saafara boo ci teelee jóg rek yàlla mën na la ci dimbale parce que nag wax dëgg yàlla di gërëm suñu santé bi nag bu baax a baax. d'accord ndax ñoom ñii ku mel ni Sira mii dañ koy envoyé ay cas chaque jour ñun ñi bàjjen ñi dañ leen sonal. <laughs> wax dëgg yàlla dañ leen sonal torop fu ñu toll ñu ngi leen di envoyé ay cas ñu di ko jël tamit di ko jël en charge di ñu ci jàppale. ba keroog suñu journée dépistage bi ba mu egsee wax nañ ko fa dañ lay yabal rek na la demal si sira dañ lay yabal rek ma ne leen sira de ñëw na si journée bi waaye wax ji waroon na ko fekke ba mu xam ne li mu liggéey am na impact te loolu tamit dañ leen ciy gërëm di leen sant parce que ñun bàjjen ñi bu ñu bëggee taxaw ci terrain bi di xool ñu feebar di leen génne di leen yóbbu hôpital te buñ ñëw hôpital ñañ fay fekk duñ ñu dimbale tamit xam nga ñu du neex mm-hmm. duñ ci sawar mais bu fekkee yow ki nga fay fekk da lay leer na soo demee lii nga fay jëlee mm-hmm. dangay ngay sawar pour jàppale nit ñi parce que bu ñun bu doon suñu sogo population bi yëpp weer ndax yàlla ñu def nag ñu nekk ay bàjjenu gox opté ko nag di ko liggéey te yàlla rek tax tamit waaye bu doon suñu sago soo gisee ñuy dugg suñu population ak di def ay sensibilisation bëgg nañ ñëpp wér mm-hmm. ndax wér gi yaram gi dafa sooxe torop torop torop torop fii ci réew mi mm-hmm. waaw nit ñi dañoo feebar te nit ñi dañuy nekk ci biir kër yi ku nekk ak cause bi la teree dem hôpital soo dugg ci biir kër yi doo ko xam ku nekk ak li la dem ñii dañ naan su ma demee aw ma lu ma jëndee ticket doo dem kii na laaj naa sama jëkk mën a dépense ak laa tal yoruma ko parce que feeg ñu ngi lay gis ngay taxaw jàpp nañ ne feebaroo mhm. te fekk feebar ba am na feebar bu nekk ci sa biir di law nga ko yëg di ko sooxaale naan fatiguement la parce que bis bu yàlla sàkk nga gis nit feebar di faj tooy ba xëy suba gis ci leneen lu ko rey ndax sénégalais moo tàmm loola dal mu ne coono la damaa tooy coono la damaa tooy mhm. fekk li nekk sa yaram yow xamoo ko mais hôpital dañ ko fi teg pour ku yëg dara dem fa mhm. ñu xoolal la mën a xam li la dal lan la mhm. waaw soo waree def ay analyse soo ko defee sa feebar dina génn feebar boo teel a xam rek soo ko fajee yàlla mën na cee def saafara feebar bi la nara a rey nag kenn mën si dara waaye nag am na fo fogaru daal bala ngay lakkale ñun nag ñu ngi ciy def lépp lu ñu mën ci terrain bi xam nañ ne jigéen ñi sonn nañ te feebar bi sonal na nit ñi te mu ngi leen di faagaagal. Mm-hmm. looloo tax bi nga xamee ne octobre rose bi ñëw na yàlla xam nañ ne suñu journée bi une semaine rek lañ ko préparé. moo tax ñu bëri yëguñu ko waaye nag yàlla def na ci sutura ba lañ ci bëggoon am nañ ko ci jigéen ñi it ñëw nañ ci faju si wax dëgg yàlla yàlla nañ ñoom ñëpp ñu wér waaw am nañ ci quelque cas mais yàlla suturaal nañu ñu ngi dinañ topp suivi bi ba yàlla may ñu ci ndam daal liñ ci bëgg. yàlla mm. nga ñu ko ci yàlla may. mais nag il faut ñu gën a ñaax nit ñi daal dem hôpital bi daal mooy farata dëgg la nag comme ni nga ko waxee ya col de l'utérus ak yooyu ak mammographie yenn yi seer na ba tax ne nit ñi dañuy daw moo tax mm-hmm. tamit fi mu ne nii fu ñu dégg gravité rek dañuy daw ñëw dañuy daw ñëw mm-hmm. waa doo ci sonn sax dëgg lañu def nañ sensibilisation curé nañ laa veille biñ ne suba la dañoo jël oto takk rajo wër parcelles yëpp annoncé ko nit ñi ñëw nañ tamit macha allah nit ñi ñëw nañ waa Pastel tamit autorité yëpp wuy si nañ ñu wax dëgg yàlla ñu leen siy gërëm di leen sant di sant tamit bàjjan yi ndax ñoom ñëpp taxawoon temm ku nekk def ko sa yëfu bopp. ba mm-hmm. yàlla may ñu ci réussite totale. Mm-hmm. wax dëgg yàlla waa district ñëw ñëpp ñëw. te loolu rek moo am solo population bi moo taxoon ñu koy def. Mm-hmm. waaw pour wér-gu-yaramu askan wi moo taxoon rek ñu di ko def waaw. yàlla dogal na nag suñu sage-femme yi li ñu ci informé rek ñun dinañ topp seen ginnaaw jéem a accompagner ñooñu ba yàlla def ci daal li gën mm-hmm. waaw Mhm. am na solo bu baax a baax euh, na kàndi Sira yaakaar naa ni dégg nga li Badiane Kandi wax am na solo bu baax a baax bu weesoo ñàkk communication bi nga xamante ni malaat yi ñu ngi koy jànkonteel ci ci hôpitaux yi Sira am na loo xamante ni day ñëw di ñëwaat di ñëwaat mu di mauvais bi ci ci ci ci hôpitaux yi mu doon doy waat loo xamante ni war nañ ko xoolaat bu baax a baax. waaw euh, wax naa ko ci sama wax ma ne euh, su fekkente ne malaat bi dafa ñëw nga accueillir ko. Euh, wax ak moom loolu dafay euh, daanaka faj cinquante pour cent ci li nga xamante ne moom mooy wàllu wérgu yaramam donc du ñu noppee di ko wax accueil bi moom il faut ñu ñu améliorer ko il faut ñu améliorer ko parce que c'est vrai œuvre humaine moom n'a jamais été parfaite euh, yaakaar noo tamit ki nga xamante ne kii moom moo fi junj sax mauvais accueil boobu Euh, heureusement que wax na ne ñëpp bokkuñu yem au niveau des hôpitaux ça mm-hmm, veut dire mm-hmm. que euh, léeg-léeg tam nit ki du nekk ci li nga xamante ne moom mooy jouram ndax nit ku nekk nit dong la waaye ñu gën a def effort ñu gën a def effort rek gën a bàyyi xel ne euh, ki nga xam ne dafa bàyyi këram ñëw kooku dafa jaaxle te te bu jaaxlee ñun ñoo ko war a dalal ñun ñoo ko war a taatal wan ko li nga xamante ne moom mooy yoon bi nan la war a def te am na ni ngay waxee nit ki day fàtte sax feebaram. Mm-hmm. dafay fàtte feebaram ba nga xam ne dina la nangu déglu parce que koo fexewul ba mu fàtte feebaram doo mën a dugal ci moom dara ndax day fekk la occupé bopp bi mënul génn ba nga fay dugal lenn donc kooku il faut d'abord nga fàtteloo ko feebaram mu xam ne euh, espoir mu ngi koy am ci yow loolu day dugal confiance ci diggante prestateur bi ak ki nga xamante ne moom mooy malaat bi. su ko defee mu mën a euh, topp conseil yi nga xamante ne moom nga koy jox euh, xam naa bu loolu weesoo soxna may mun Maymuna euh, bàjjen Kani du li mu toog sax moo tax mais mm. à travers elle acteur communautaire yëpp moo xam bàjjen moo xam relais mm-hmm. ñu ngi leen di remercier ah parce que seen engagement ci terrain bi kenn waranteetu ko mm-hmm. chaque fois guddeeg bëccëg ñoom seen kër yi dañ fay fat ku nekk à n'importe quelle heure mm-hmm, donc xam nga loolu bàjjen rek moo ko mën loolu acteur communautaire rek moo ko mën mhm, mhm. euh, ba tax na sànq mi ngi wax ne euh, malaat yu ñuy yónneek yooyu euh, ñoom liñ leen tàggat tax na ba malade buñ la yónnee mhm. yow amaana doo sonn sax ci ci ci gëstu bi da ngay xam ne kii ku ñu war a jàppale la parce que ñoom déjà def nañu benn travail au préalable ak moom ba pare ba xam ne kii buñ ko jàppalewulee Euh, amaana du am fu mu jëm te ñoom nag ñoo ñu nekkal ci askan wi ba nga mhm. xamante ne euh, ñoom ni ñuy mënee fëgg seen buntu à n'importe euh, mhm. xëy na maladie du ñu jotee noonu ci ñun parce que ñun xëy na structure bi tax na ba yow fa ngay nekk ñoom duñ la xam ba ki mais ñoom ñoo ñu nekkal ci askan wi loolu encore ñu leen si gërëm di leen sant parce que parfois ñu indil ñu cas boo xamante ne bii amaana bu ñu ko teelutoon jël en charge jeexital bi dina xaw a doy waar trop mhm. te yooyu Euh, day fekk ne ñoom le travail ñoom ñoo ko def au mhm. wax ak xëy na euh, borom këru euh, ndaw soosu wala wax ak waa kër ñooñu ba nga xamante ne day mën a yombal lépp genre médiation la ñuy jouer parfois ak yooyu ba nit ki sax am confiance pour mun a ñëw ci structure yi ba ñun ñu ci war a mun a def mais aussi di wax rek ne li nga xamante ni moom mooy octobre rose c'est vrai que parcelle organisé woon na euh, mais unité 26 aussi jotoon na organisé dépistage du col du cancer de l'utérus mhm. euh, Grand Yoff aussi jotoon na organisé mhm, mhm. à travers euh, Marie Stop International ñoom ñëpp jàpp nañ ci ba bi ñu xaymaa autour du district pratiquement on a eu 1101 femmes yoo xamante ne yi consulté nañ leen ci ci ci octobre bi. d'accord euh, parmi ces mille cent un femmes. Mm-hmm. dix neuf am nañ ci ñi nga xamante ne par rapport au cancer du col de l'utérus maanaam orienté nañ leen pour ñu gën a mën a euh, def prise en charge bi. d'accord mais am na si ñett ñoo xamante ne tamit ci wàllu ween orienté nañ leen mm-hmm. pour que ñu mën a def prise en charge bi donc ñu jàpp ne loolu nekkul loo xam ne lu négligeable la mm-hmm. euh, donc lu am solo la ba nga xam ne vraiment il faut nit ñi gën ci bàyyi xel Euh, bañ a ragal euh, gën a dem ñu ñu leen di saytu ci structure sanitaire yi même en mhm. dehors de octobre rose. Euh, soxna ñoo ngi koy wax tout au début de l' émission Sira. Mhm. mu mel ni Naba Choucair tamit chaque année octobre rose da ngeen fay amal ay dépistage gratuit mhm. tous les c' tous les jours voilà. waaw fu mu toll nii balaa octobre bi di jeex fu mu toll nii femme bu ñëw. bëgg saytu li nga xamante ne moom mooy cancer du col ak du sein dinañ la defal Euh, de façon euh, gratuite kon nit ñi kon ko bàyyi xel bu baax waaye ñu jàpp ne tamit euh, octobre rose daanaka li ci des bariwul mais ñu ñu ñu ñu gën ci farlu rek mooy li mhm. may wax rek même en dehors de octobre rose man jàpp naa ne femmes yi nga xamante ne dañuy ñëw consultation war nañ leen mën a dugalal lool ci paquet consultation bi pour ñu mën a xam. d'accord Sira balaa balaa balaa ngaa ñëwaat rek dañuy jox kàddu gi Badiane Kandi mu daal di tàggatoo Badiane. waaw waaw moom na ma di leen gërëm di leen sant maa ngi nuyu soxna bu baax a baax ndax nag wax dëgg yàlla di gërëm tamit waa Nabi Sukkeer di leen gërëm di gërëm tamit rajo Afia bu baax a baax a baax di naan yàlla rajo bi dem ci kaw a kaw a kaw a kaw ak yéen ñi fi liggéey yëpp ndax nag wax dëgg yàlla yéen ngi jàpp ci mbir askan wi. bu baax a mm-hmm. baax man xam naa ci dara. xam naa ci dara parce que dama fii ñëw soxna damay wax ak moom. te damay gis gisit li ngeen di liggéey mm-hmm. te loolu dafa am solo ndax bu fekkee ñun ñëpp dañ fi toogal askan wi yéen ngeen ñëw nekk rajo di ci jàpp bu baax a baax lu leen ko kenn ñun ngeen ko defal mm-hmm. ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant di ñaan yàlla nag yàlla bu leen réccu lépp loo leen ko doon defee di ñaan waa Nabi Sukër tamit yàlla yokk seeni mbir parce que ñoom ñii nga xam ne ñooy suñuy njiit nekk fa tamit ñu ñuy jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax di leen gërëm daal di leen sant di ñaan yàlla bu baax a baax di gërëm bàjjan yëpp nag. ñu lay jaajëfal bu noor yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. di leen ñaanale mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, Badiane Kandi Touré di fàttali ne moom mooy euh, njiitu association Badiane gox yi nekk foofu foofulee ca Parcelles Assainies Badiane gox yi nekk fii ci réewum Sénégal comme ni ma koy waxee tout le temps rek yéen a ngi amal liggéey bu am solo dem euh, ci wàllum wér-gu-yaram ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci loolu. Mm. yéen a ngi amal liggéey bu am solo vraiment chapeau. Mm. Sira dañ lay bàyyi nga tàggatoo. non ba ma gërëmee Badiane à travers les acteurs communautaires. Euh, vraiment di gërëm euh, suñu médecin chef docteur Rokhaya Dabassi ndax yaakaar naa euh, moom ku farlu la ci li nga xamante ne moom mooy octobre rose mhm. maanaam mën naa wax ne sax la mu la cay soññ sax dafa daanaka yow da ngay dem sax ba daan ne waaw xëy na lu mu doon jigéen mais dafa nekk rek koo xamante ne ku xam lan mooy njëriñu teel a fagaro ci lii di cancer du col de l'utérus mhm. ak mhm. du sein ndax étant médecin mais leneen li tamit di gërëm équipe cadre bi ndax euh, jàpp nañ ci bu baax ndax saytu nañu fu nekk jéem nañoo xool nu ñuy fexe ba am ki nga xamante ne moom mooy euh, sage-femme mais euh, maanaam ñoom ñëpp seen programme dafa xaw a chargé ba nga xamante ne moo waral finalement ñu mën a jot ki nga xam ne moom mooy bàjjen kànni di leen gërëm rek di leen sant parce que en fait yéen a ñu may émission bi c'était pas évident mais hmm. da a toog rek daan ne yéen Octobre Rose il faut ngeen def ci dara daan ñu may émission bi kon nag ñu ngi leen di sant vraiment di leen gërëm à travers Penda vraiment seen euh, directrice encore une fois di gërëm askan wi yëpp ci déglu gi jaa ngeen jëf. merci mhm. di leen jaajëfal bu baax a baax euh, mu di Sirajou Mbia di EPS Nabil Choukar ñu ko doon dalal doon dalal itam Kandi Touré di présidente association des bajenu gox foofule ca Parcelles Assainies mbokk auditeurs yi li leen leen indiloon tey si seen émission meilleure santé ñu ci doon ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement euh, doon waxtaanee euh, jàngoro ji di cancer du sang cancer du col de l'utérus nekk nag ci weeru octobre nga xamante ni dafa ñeel wàllum sensibilisation. jàngoro joojee ci wàllum jigéen ñi di ñaax jigéen ñi rek ñu dem euh, teel a dem xooli euh, seen yaram bu baax a baax def mammographie dépistage cancer du sang cancer du col de l'utérus ngir rek gu yaram gu gën a mucc ay mbokk auditeurs yi ñu leen di jox euh, dig daje beneen àllax ba ak beneen thème ñeel seen émission meilleure santé comme ni ngeen ko xamee rek ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement laataa ñoo dem rek ñuy gërëm itam Thiané Ndiaye ci entretien bi nga xamante ni sëq nañ ko ak moom mu doxaa joxaat ñi nga xamante ni moo di jigéen ñi nga xamante ni ñooy dund ak jàngoro ji di cancer du sein ba ci sax cancer du col de l'utérus mu jox leen espoir bu baax a baax xam ne jàngoro la waaye itam day wër buñ ko teelee dépister bu baax a baax mbokk auditeurs yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yi itam ci teewlu bi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 soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp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 garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp